bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam tabaxi ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki seetaan aaxiru zaman noo ngi dellu siwaat di àndaat ak yéen ci seen deuxième partie ci waxtaan wi première partie bi ñi ngi leen doon junj yi ñuy wax ci tolluwaayu réew mi ci wàllu ñàkk sécurité bi nekk ci réew mi ak wàllu yoon ci réew mi ak diine ni mu ko jàngalee ak it doon leen jaalewaale kilifa gi fi bàyyee ko woon ak it leeral yiñ ci doon def di ci jéggalu bu baax sax ci mbokk yi waaye lu mënatoon a ñàkk la ndax bu amee mbir mu am aw nit jël wax ja indi ko ne lii la te wax ja yow nga déglu ko ba mu jeex nga jàngat wax ji A ba ay yooni yooni yoon ca biir wax ja gisoo ci lu jege luy wàññi daraja yenent bi sallallahu alayhi walla luy wane benn jikko ju ñaaw ci moom ba tax kenn waru koo roy wala yu ni mel yow sa jàngale du bokk ak bokk ak keneen na muy déggee ak na muy jàngalee dafay loolu rek mooy la ci nekk euh, leneen li nag mooy li ñu wax ci wàllu réew mi ci yi xew tey Sénégal accident yu bari yi jamono yee ci ginnaaw lu man ñett fan ñu tudd ci lu jege fanweeri nit yu faatu ci ay accident ci anam yu doy waar loolu nag bettu bettul ku xam yeneen beeg li muy jàngale sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn dafa wax ni imaam Malik moo génnee xadis ba ca mu watta ne maa dahara alxuluulu fi qawmin qattu illaa ulqiya fi quluubihim ruub ak càcc bu feeñee ci aw nit yàlla dana def ci xol ya benn xel dootul dalati mooy bu demee ba ak càcc am wala fasa zina fi qawmin qattu illaa kathura fihimul mawtu njaaloo du bari ci aw nit mukk lu dul ne dee bari na ci ñoom wala naqasa qawmunil mikyaala wal miidaana illa qutia anhumu rizq aw nit bu ñu demee am réew ba commerçant yi nekk ci marché yi ci boutique yi bu ñuy pose du mat bu ñuy natt du mat yàlla dana dog wërsëg ci ñoom la ñu waroon a am ci développement dootuñ ko amati ولا حكم قوم بغير الحق الا فسا فيهم دم او نيت دونو نياك اتي دغ مي دي اتي سن بانيخو بكان اك كو نيه كولن نيه اك لو نيه كولن نيه با تخ دونو اتي دغ لودول ني ديرت دانا تسارو سي سن بير ني رايانتي كوم اي وين ولا خطر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو aw nit du nu fecci kóllëre kenn du jàppati nit jàpp gu dëggu ku nekk yaa ngi jàpp sa moroom ab diir xëy bàyyi ko doo yem ca bàyyi ko sax léeg ci société bi mais sikkal ko nga cee boole mu ne lool du am ci am réew lu dal ne yàlla yebal na ci seen biir seeni noonu mooy agresseurs yeeg yi ñuy tudd ak ay nit ñu yor ngànnaay ak yu ni mel bu demee ba nit ñi kóllëre sàmmatuñ ko loolu dafay am kon deegu bari gi jaaxal na ñëpp léegi ci réew mi mbokk yi senegaal waxtu wu nekk ñu tàgge la ku ñett fan yi rek liñ ma tàggee ci ay nit yu ma jege yu ma xam kenn xamul nu mu toll boo jàppee rajo yi dañuy tàggee tàgge ba seeni heure jeex te seeni tàgge du jeex demal armeel yi ci yoof duñu noppalu ci gas ci sang ci rob demal armeel yee ca pikin demal armeel yee ca caaro Caaroy demal ci armeel yépp yu nekk Ndakaaru fu dul Ndakaaru kuy dugal sa mbokk mu faatu bay génn am ku la fekk ca bunt ba di dugal bu demee ba njaaloo tasaaroo ci am réew loolu lay jur mooy deegu bari gi te Sénégal mu ngi nii ak njaaloo gi auberge mi ngi ni ak njaaloo gi ci kabaano yi mi ngi ni ak njaaloo gi ci hôtel yi mi ngi ni ak njaaloo gi ci appartement yi partout njaaloo gu tasaaroo gi te ay nit ñu ñuy tuddee kilifa yor seen i soxna ak seen i doom bàyyi fa seen soxna su leen lew dem nekk ci hôtel yi di njaaloo nekk ci auberge yi di njaaloo njaaloo nag bu demee ba tasaaroo ci aw nit deegu bari rek lay jur loolu Abdullah ibn Abbas wax yenent bi gën na koo firi ci beneen xadis juróom yam tuddoon ne maa ngi ñaan yàlla sax buy am bu mu leen fa fekk waaw yooyu tudd na ci bu demee ba njaaloo tasaaroo ñu koy def nëbbatuñ ko ñaawteef alfaaxisha ñaawteef gu man ci doon lesbienne góor jigéen njaaloo bu demee ba léegi nëbbatuñ ko mu ne pes mooy tasaaroo ci seen biir feebar yoo xam ne seeni maam xamuñ ko woon boo demee hôpital fekk kuy tereta jàngoro joo xam ne ni ay maamam xamuñ ko woon demal dante demal principal demal CTO demal Fann ay feebar yu jaaxal nit ñi rek moom nga fay fekk lan moo ko indi mbon guñ nëbbatul ku ne lu bon la ngay def yaa ngi koy fésal yonent bi dem ba yegg ci ne bu ñu bañee joxe azaka yàlla day téye tawam bu ñu bañee peser pose yu mat natt natt yu mat mu ne yàlla bekkoor lay wàccee ci seen biir ak buur bu jubadi di leen jaay doole di def lu ko neex te kenn du ca man dara lan moo koy indi pose yi du mat natt yi du mat ci commerçant yi mu ne buñ bañee joxe azaka nag damay téye taw bu dul woon ak bàyyi ma yi du tawati bu tawee rek bàyyi ma yi moo tax noonu la ko toppee ba xaddis ba jeex kon yi xew ci réew mi ci ray gu bari gi insécurité bi xoolal ray gee amoon Kër Masaar mbokk mi jóge woon Italie ñëw ànd ak soxnaam déposé yaayam bay ñibbisi di wàcc otoom aw nit ñëw yor oto oto ba ngiro ci suuf si jox ñu sa oto mu lànk ñu jàppanteek moom yëkkati fetal jam ko ko ci kanamu soxnaam daw dem seen yoon lu gën a ñaaw loolu ci senegal di am te ci li koy indi rek mu bokk ci yu bon yii di xew yu bon yii di xew ñu koy seetaan naan réew mi réewum démocratie la réewum liberté la réewum laïc la moo tax yu bon yi di dal ci sunu kaw rek accident yu bari lakk geeg deegu bari geeg agression bu métti beeg yépp yenent bi waxoon na ne yii bu amee rek lii am kon li ko fiy jëlee bokk na ci ñu tuub te delloo ci yàlla te wàññi mbon gi sàngara si ci dëkk bi ëpp na njaaloo gi ëpp na ngóor jigéen gi ëpp na caaxaan yi ëpp na ci senegal réewum jullit bu fi yu mel ni di am nag yii rek moo fi am dafay il faut ñu tuub dellu ci yàlla pour yooyu rek lew beneen bi mooy wàllu wàllu yoon fan yii yëpp yéen a ngi dégg coowu diw jàpp nañ ko tëj mairie dakaar nangam ak nangam def naa ci waxtaan wu yaatu ci émission daayira bi ci Seneweb rajo man ngeen a dem ci youtube bi ngeen gëstu jukku émission daayira bi def naa ci waxtaan wu yaatu fii dama koy tënk rek pour wane ni ku tudd maire Sall lekkuma ceebam ku tudd président sàll lekkuma suukaram baam kenn ku ma ciy solal robb ci sa kanamu moroom waaye dëgg yàlla mooy boroom bu jotee nañ ko wax ndem wax ja dana jëriñ te am nañ yaakar ni dana jëriñ lolou moy lan moy buñu nekké ci am rew di boromi xel fekke fi yu weesu yu am ba tay yi fi xew munuñoo nekk ci am rew kumba am ndey ak kumba amul amul nday nekk fi te lolou lan mo koy sabab moy baña delu ci njàngaleem yàlla ak njàngaleem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu def amee ñaar def ñaar ñëpp nañ leen teg ci yoon loolu lañu ñu diine jàngal xoolal sunu borom ci alquranul karim dafa wax ni inna allaha yamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna naasi an taxkumu bil adli yàlla daf leen di digal ngeen joxe confiance ci ku leen wóolu su ngeen demee bay àtte ngeen àtte dëgg feneen mu wax ni yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum awil walidayna wal awil walidayni wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima suñu borom ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen taxaw bu waxuma àtte sax mais seede rekk bu jotee témoin na ngeen témoin dëgg mu ne bu mu leen jàpp mukk dëgg jot yet bi war dal ci kaw sa bopp ba doo wax dëgg wala doo àtte dëgg wala yet bi war a dal ci sa kaw ñaari waajur wala sa jegeñaale walla ku woomal nga am loo yaakaar ci moom ba tax doo wax dëgg ci seede wala doo àtte dëgg bu dëgg jotee yat bi war a dal amul kii dafa bokk ci sama parti amul kii sama député la amul kii sama ministre la amul kii sama farandoo la ba tax dama koy protéger am dossier yu may teg sama concu kii farut ak man damay bàyyi yoon bu waree dal ci kaw mu dal ci kaw sunu borom nee na loolu bu ma am ka nga am looy séenu ci moom lum la mën a jural ci njëriñ bu dee ne dafa am base électorale wala lu manti doon suñu borom neena ma maa ëpp base électorale ndax may yor xol yi ma koy manipuler may seet kuma neex ma duggal ko ci xol yi ñepp far ak moom ma seet kuma neex ma génnee ko ci xol yi ñepp weddi ko kon bu dëgg jotee nañ ko taxawal nañ ko nañ ko doxal mu wara dal ci sa bop wala sa jégué ñaale bu mu ci manti doon benen bi moy pour wane ne yenent bi limu mu moy amul ki def ma jégué ba tax yet bi duma ko teg ci kawam kii def maa sori yet bi day dal ci kawam yenent bi jàngalewul loolu sallallahu alayhi wa jàngalewu ko te loolu moo war a am pour ñu nekk ci réew ñu ñëpp ñoo dëkk ci réew pour ñu am xel mu dal maxtaar saar bu defee naka sudul noonu ñu teg ko ci yoon balde mii bu defee naka sudul noonu nañ ko teg ci yoon ngir keneen xam ne bu defee naka sudul noonu dañ koy teg ci yoon waaye feeg mu ngi am rawukaay ak làqatikoo làqatookaay ak muccuwaay kon day am ku mu neex nga def lu la neex kooku am confiance keneen ki moom ragal yonent bi sallallahu alayhi dañu dem ci benn xare am ndaw su ci sàcc rasotul fath bu mu sàccee ñëpp tiit ndax li mu sàcc mën na rubbu woon dinaar dañoo war a dog loxo bi Urwatum nu Zubayru nee na ñu dem ci Usayma euh, Usaama Usaama ibnu Zayd gannaaw gis nañ mu jege Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ceeg moom sàkku ci moom intervention pour mu wax ak Yonent bi pour ndaw si ñu bañ a dagg loxoom Yonent bi ne ko li mu ni fii haddin min hududillah ndax da ñëw di wax ak man ci pen bu yàlla tëral ne bu nit defee nangam nañ ko teg ci kawam yow nga ñëw naan ko naan ma buñ ko teg ci kawam. Usaama ne ko istaghfir li ya rasulallah yonent bi sàkkumaa jéggalul yàlla ah bi loolu amee ba guddi jot yonent bi sallallahu alayhi wa daal di yéeg ci kaw minbar bi xutba ne ama baadu gannaaw bi ma sante yàlla julli ci sama jëmm ji fa innama ahlaka naasu qablakum fa innama naasa qablakum li alagoon nit ñi leen jiitu woon danaa leen ko yëgal li taxoon yàlla duma leen katastorof am ci seen réew danaa leen ko wax ñépp di déglu ku tedd ki sayyidina muhammad sallallahu alayhi sallam mu ne annahum kaanu ida saraqa fihimu sharifu tarakuhu dañu daan def nit ku tedd bokk ci famille bu mag wala mu bokk ci parti pouvoir wala mu am milliard wala mu am yenn doole yi su luubalaan def naka su dul noonu dañ koy protéger kenn du ko laal tarakuhu ida saraxa fihimu sharifu sharif ci jamono ji mooy ku am ndomba tànk kumu wala nga nekk milliardaire wala nga am tur wu rëy wala nga am luñ lay ragalee boo defee naka su dul noonu yoon du dal ci sa kaw yonent bi nag na ndeysaan ida saraqa fihimu daif wa ida saraqa fihim daif aqaamu la xadd ku néew doole bu sàccee ñu ne ko tey nga dee rëbës boo nekkee ci pouvoir def naka su dul noonu ne man dara du dal ci sama kaw mucc naa boo nekkul ci pouvoir def naka su dul noonu ñu ne tey nga dee yoon moom effectivement mi ngi dox li muy dox yoon waaye day am kuñ ko jébbal kuñ ko dul jébbal nañu bàyyi nag ñii lañuy jébbal yoon mu def liggéeyam ñeneen ñi duñ leen jébbal yoon pour mu def liggéeyam rapport bu jibee diw jël na diw jël na diw jël na amul nañ bàyyi kii joxe kële nañ joxe ñëpp yeneen bi ñëpp lay joxe sallallahu alayhi wa sallam mu ne xeet yi leen njiitu woon li leen alagoon mooy ku am doole am base politique am ndoom tànk am tur wu rëy am luñ koy ragale bu defee naka sudul noonu yoon du dal ci kaw mais ku néew doole moom bu defee naka sudul noonu yoon dal ci kaw ndeysaan mooy li may laajte ndeysaan laajte la rek question du dara sax mooy milliardaire bu ñu tëj dix ans Sénégal gisaguma ko te xanaa milliardaire du def luñ ko tëjee 10 ans te boo demee ci kaso yi fekk ku fa tëdd vingt ans turwaara yut amuli milliard système boobu du système mu yeneen bi xam nga sallallahu alayhi wa sallam système mu yeneen bi mooy ñëpp dañuy yem ci kanamu yoon loolu la ko tedd ki sallallahu alayhi wa sallam a jàngale yeneen bi ne ci kaw xutba bi de kaw min minbar bi walladi nafsu muhammadin bi yadihi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما نلين دي واتل كبور بيغا خامني بكنو محمد من كي لخو مونغب وقت موكو ني خفار ما نغي وات كي يالا مومني فاطمة مي دوم محمد بو ساتيون ما دوغ الله أكبر صلى الله عليه وسلم بقي أمريو dañu waroon a jël baat bi rek di ko teg ku yor dogal ci wàllu atte déggu ko kuy jibbalaate atte kat déggu ko mooy ñi nu jiitu woon li leen alagoon mooy protégé nit ku am doole ak bañ a protégé ku amul doole ci kanamu yoon yenent bi ne fatima mii doomu mouhammad bu sàccoon sax ma dog loxoom mooy bu fekkoon yenent bi dafa yor état am benn ministre am wala ku ko jege def naka sul noonu daf lay jébbal yoon kon dañuy ñaan nañu delloo si njàngaleem yenent bi ndax mooy tax société bi ñépp ànd ak xel mu dal mooy gis nañ ne kat rupture dafa am te rupture bi lan moo ko indi mooy amul kenn ku ñuy protéger ci kanamu yoon boo defee naka sudul noonu loolu mooy tax xel yépp dal ku ne tëdd nelaw te loolu mooy njàngaleem yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te kuy boroom xel mu rafet loolu nga nangu su ko defee kon du ma dugg ci benn détaayu ku def ku deful waaye li may détaillé mooy yenent bi lim nu jàngal mooy yoon amul ku ñuy làq ku ñuy duma ñëpp ci kanamu yoon ñëpp ci kanamu yoon la yoon wax ñu tëral ko dëppoo ca voté ko ñu doxal ko su ko defee mu aaral ñu lii ñëw ëllëg xam nga diine boo gisee mu digle dog loxoog caw ku njaaloog yu ni mel mooy du jëmmu jëf jee ñu ko jëf tey mais pour ëllëg la keneen bañ ko defati moo tax mu teg pen bu mel noonu am na loo xam ne bu ñu ko doxalee ci réew mi pour ëllëg la mu nekk njëriñu ñëpp waaye bu loolu amul am ku jàpp ne su ma bokkee ci bërëb sàngam danaa raw bu ma bokkul ci bërëb sàngam du ma raw loolu noonu le du njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam nañ ci bàyyi xel kon nañu àtte yoon nañu tëral yoon na fi nekk moom yoon di luy jubbanti képp ku dëng ma sàmba ma demba ayda nafi ku wàcc yoon ñu teg la ci yoon dafay loolu mooy tax équilibre mën a am ci société bi xel yépp mën a dal waaye nag kaay bokk ci man mucc kaay bokkoo ci man doo mucc loolu du njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam loolu nag situation réew mi moo koy indi moo tax mbirum aaxiru zaman la nag moo tax ñu indi ko ci aaxiru zaman dama waxoon ba may jeexal nag daayira ba laay wax mooy léeg-léeg boo waxee sa wax danañ jël yóbbu la kër yaama di tax ci manipuler sa wax kon day baax nga leeral ko waxuma ngir tudd kenn ca lenn la mu nekk pour ne dama ko ci sikkal wala dama cay wax loo xam ne lu ko cay gaañ la ci liggéeyam waaye lii lañu diine jàngal moom lañu jàngale dañ ko déggee njàngaleem diine bu ñu xool kii wax kumu mais nañu xool li mu wax lu mu te mooy ñu doxal dëgg ñu doxal dëgg ñu doxal dëgg loolu mooy dëgg moom la ñu yonent bi jàngal loolu la ñu mën a jàngale di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi ba beneen émission akhiru zaman ci beneen thème incha allahu taala di ñaan yàlla mu dolli dal ci réew mi dolli jàmm ci réew mi sàmm réew mi sàmm réew yi wër réew mi sàmmaale mboolem àdduna bi yàlla delloo fi dal ak jàmm ci barke alxuraanul karim Pour accéder à votre plateforme de Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.